ñu tuddee ko Nankil donc wër na àdduna def na li mu war a def yóbbu na drapeau Sénégal fu nekk ki ci topp di Jules François Bocandé donc moom ak mindset ak état d'esprit yóbbu na Sénégal fu nekk mais état d'esprit pour man euh, soo koy wax rek di ko jëmale di ko ko joxe d'Orobo Saliomani. Je n'ai pas voulu mentionner son nom parce que beaucoup Massaf, quelqu'un qui a état d'esprit, bu mel ni Sadio Mané bañ a jël way bi moomal ko sa bopp dama bëgg képp koo xamante ni am nga mindset am nga gëm-gëm am nga gëm-gëm yow dañ ñëwoon ci àdduna pour seetaan parce que on est on est pas venu ici pour ñëw seetaan après ñu yàlla na yéex ñu faatu nit bi fii boo fu ñëwee rek. d'avoir participé alors maintenant ça reste ci yow ci sa mindset ci état d'esprit nga xam naka ngay participer donc góorgóorlu participer la fay impôt participer la jaamu yàlla participer la mais surtout liggéey gëm ni yow da nga war a participer ci loolu donc may ñaan ngeen tàccul ma Sadio Mané bu baax a baax a baax a baax parce que il m'a beaucoup inspiré donc. à travers Papis ma ànd moom mu def ci yóbbu ñu Casamance donc le la boo xoolee mooy morceau bu ci gën a yow bu ci gën a bougé nekkul morceau boo xamante ni ñun dañ ko def sax pour dañ ko def parce que dañu bëgg donc ñu dem ci beneen morceau bi nga ni mooy def maanaam sa part de mbëggeel def maanaam ah. boo xoolee gars yi dañuy comprendre rek ah boobu dañ def ma nag jaajëf muy sixième titre ah salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant euh, di leen wax merci ci teewaay bi jërë ngeen jëf beneen bi ci topp may nuyu sama yaay Ndeye Fatou Diagne di borom jërëjëf ci yàggal bi Diouf di nuyu képp ku ak foo mën a ne maa ngi lay jox loxo di jox sama ciwaay maa ngi leen di présenté waat suñu chef d'orchestre xam naa ne xam ngeen ko sax waaye am na ñoo xamante ni war nañ ko xam amaana teel ñu doog a dugg ci chaîne bi wala web mi ngi tudd Papis Mbaye di chef d'orchestre Santane ma fekk ko fii moo nekk sama papa ba man ñi ma tàmbalee lu ma way généralement moom la ku ñëw rek daal mais lu wàññi def set moom la kii nag sama rakk la Mouhamed Seck di directeur Faramaren Sey di directeur Faramaren moom nag dama koy tooñ naan ko imam parce que moom mooy imaamu kër gi jàkka ja la xam gàlle bi jàkka ja gàlle bi donc yàlla dogal ma nekk ci aar dem ba mu màgg jàng yi ñëw ko kay toog sama wet muy directeur Faramaren mooy Seydina Mouhamed Seck donc euh, damay bàyyi rek Papis mu daal di moom tamit nuyoo boobu Omaro ak euh, Youssou di wax ni amoon question alors euh, je pense que su fekkee amul question ñoom dinañ mën a jaar foo xamante ni di ngeen comprendre lépp di ngeen ko bëggee bu soobee yàlla su amee nag ñu buruxlu xam naa yëfu jooyu lay doon dina am ñu buruxlu ma bàyyi leen nopp gauche leen nopp droite foofu tontu salaam salaamaaleykum Euh, je salue maa ngi nuyu suñu premier partenaire yi fi nekk yëpp euh, yéen moom dama tàmm di leen di leen wooyee les premiers partenaires des artistes la presse euh, man man noonu laa leen tuddee quoi man man man gisuma rek aspect journalisme ak téye micro téye caméra man lo loolu laa leen di wooyee les premiers partenaires parce que comme nous sommes musique nous sommes en te bu ñu paree lu ñu mun munti xalaat baax na baax baax na neex na neexul defe naa yéenay suñu premier client parce que c'est la presse yéen yéenay dem comme ni ngeen def tey jii nii ñëw si lieu bu symbolique bu fort d'émotion nag waaw un lieu symbolique et fort d'émotion j'ose dire euh, ndax euh, l'histoire elle se répète pas la vie elle continue quand je dis la vie elle continue damay commencer sama jëmmu bopp sama toogaay bi fii euh, dafa foor torop comme ni ko Waly waxee euh, papam la magam la loolu cër yi ñu boole la mais au-delà de ça damay fàttalu man y'a vingt deux ans si kër gi fii fii ñu toog nii fii laa démarré mon aventure musicale avec euh, euh, suñu mag ji baax ji euh, Thione Ballago Seck yàlla ko yàlla yërëm mais sàkku si yéen moment boo leen bañ ko fàtte si ñaan c'est très important alors Wally bi muy génnee album comme Omarou laa dit premier point de presse bi mu def fii la woon ñuy dund ba suñu kilifa ko won ñu ginnaaw je crois bu ñu génnee album il est essentiel il est essentiel ñu ñu dëggal continuité bi nekk si li ñuy def loo tax mënoon na mënoon na dem si hôtel mënoon na dem ci hôtel walla mu dem fi ñuy defee point de presse mais euh, l'acte symbolique de revenir à sa base c'est pour définir la continuité je vais pas euh, euh, duma duma yàgg si côté émotionnel présence bi damay développer directement si leen fi indi muy euh, l'album état bi mu nekk euh, un album très riche à mon avis boo xam ne euh, du ma ko défendre du ko défendre je crois yéen ñi presque bi yéen a koy défendre boo leen ko déglu parce que defar musique bind texte am chanteur bu mel ni moom comme on dit yomb na trop c'est très facile Euh, problème ba mu ngi si li ñu liggéey bu génnee ban appréhension ban orientation la ko nit ñi jox loolu nekkoon primeur li ñu doon euh, li ñu doon wut état d'esprit c'est un un un mot fort ay tolluwaay la yoo xam ne yii dafa jéggi dayo ci doomu aadama tantôt si li mu nekk pour réew mi mu doon bi mu jógee tantu par rapport digganteem ak boromam tantu par rapport ak nit ñi muy séqal chaque jour donc bu nekk benn volet boo xam ne euh, moom nag ay inspiration dañ ma jaaxal moom dañ ay inspiration dañ ma jaaxal parce que orientation bi muy jox xalaatam des fois dina liggéeyloo ba nga dee ba nga tas mais euh, loolu euh, dama njort ne daf ko hérité si son regretté père bi mu tegee état d'esprit dama ne ko le thème il est hyper sérieux il est trop sérieux te jamono ji booy def album si suñu avis personnel par rapport ak ni dëkk bi di doxee par rapport ak ni fans yi par rapport ak ni sénégalais yi partout à travers le monde li ñuy jëriñoo musique da nga war a laal tous les domaines sensibles l'émotion l'importance des textes la détente la distraction c'est très important kenn mënu ko jëlee ci musique kenn mënu ko jëlee ci musique donc dans une composition da ngay gis ne que sur un album de quinze titres tu as la latitude de parler wax problème yi ngay dund ci biir album bi ça c'est très important un artiste engagement am dañ koy xool rek ci pourcentage bi mais c'est forcé par force da ngay engagé wu da ngay am noo xam ne noonu ngay doxee léegi li si des am nañ ñun en tant que sénégalais euh, fu ñu toll en terme de réalisation musicale am na fu dëkk bi toll. foo xam ne euh, on na de nouvelle génération yoo xam ne dañuy suivre li xew feneen li ñuy def extérieur di ko def en Europe aux États-Unis ñooñu mënuñu liggéey te bàyyiwuñu leen xel ah euh, s'il euh, li ñuy wax ni am na solo trop ñu ngi jéggalu rek alors pour pour comprendre direction bi waa li jël depuis un certain temps il faut pas chercher loin. li ñu naan nekk fii nekk fu ne mënul ne musique rek ko mën donc album bi dafa nekk euh, album boo xam ne dafa multidirectionnel parce que li may wax ne que dañu am génération yoo xam ne ñu ngi si la la tendance sentimentale émotionnelle ñu ngi suivre euh, ce qui se fait aux États-Unis donc tey jii booy liggéey album il faut nga sóoraaleen koo mun ci doon nag koo mun ci doon il faut nga sóoraale parce que quand di te ngay yeewoo fii fekk fi baax mënuloo def loo xam ne bi mënuloo def loo xam ne bi doo doo bàyyi xel ñi koy déglu bi nga dugg si seen euh, seen seen problème quand je dis di nga dugg si seen problème mooy waa lii c'est man.